léegi damay woote wàllu ci sama victime bi nga xam ne dafa am arrêt respiratoire maanaam nooyeetul kan laay woo wàllu police 17 sapeur 18 wala SAMU 15 15 wala képp koo xamante ne nii mën na maa indil wàllu woote bi dafa war a nekk loo xamante ne nii lu leer la ñi may waxal ma wax leen lu leer wax leen fi ma nekk ba nga xamante ne nii képp koo xam ne day ñëw di ma indil si wàllu bu ne ñëw ci Euh, anam yu leer du am benn jafe-jafe tey dañuy xool lan mooy arrêt respiratoire arrêt respiratoire mooy lan mooy nit ku nooyeetul nit ku nooyeetul mooy lan mooy ngelaw li duggul ngelaw li tamit génnewul ngelaw nan la ñuy xamee ni ngelaw duggul génnul dañ koy defal li nga xamante ni mooy méthode jooy méthode jooy mooy lan damay jël samay nopp ma dendale ko ak ba kanam pour déglu ma jël sama lex ma dendale ko ak gémmiñam pour ma sentir ba xam ngelaw mi ngi génn ngelaw lu tàng wala déet ma jël samay gët may xool biir bi ba xam mi ngi yéeg di wàcc sentiruma ngelaw buy jógee ci gémmiñam dégguma ci sama nopp tamit benn bruit boo xam ne am na fi samay gët tamit gisuma ne biir bi mi ngi yéeg wala mi ngi wàcc kon mën naa ni kii nooyiwul mais ku nooyuwul nag nan lañ koy defal d'abord dama koy defal li ñuy wax LVA LVA mooy lan mooy damay yombalal fépp foo xamante nii fi la ngelaw li war a jaar nan laa koy yombalee damay jël bopp bi ma yóbbu ko ci ginnaaw ma ubbi gémmiñ gi ma xool lépp loo xamante ni nii dafay indi gàllankoor ba ngelaw li du mën a jàll maanaam baat bi su fekkee dafa sol chemise ma dindi bouton bi bu dee dafa takk cravate ma tekki ko bu dee aussi dafa takk ceinture ma yolomal ko ba nga xamante ni fépp fi nga xamante ni ngelaw li fi la war a jaar day yomb ma ubbi gémmiñ gi xool ba xam amut lenn loo xamante ni mën naa gàllankoor euh, nooyi gi maanaam lépp loo xamante ni bokk ci gémmiñ gi nekkoon ci bu amee ma génne ko jël un linge propre ma fomp gémmiñ gi ba mu set su ma paree nag doo ko may li nga xamante ni mooy ngelaw mais laataa ma koy may ngelaw damay xool ba xam pou bi ñëw na wala déet maanaam ba xam xol baa ngi dox nan laa koy xoolee damay xool sidit bi nga xamante nii moo nekk ci ginnaaw nopp bi te jëm ba ci xol bi ma jël sama ñaari baaraam ma teg ko pour xool ba xam xol bi mi ngi dox wala doxul sentir naa ni xol bi mi ngi dox kon kii jafe-jafe nooyi la am léegi nag dama koy may ngelaw nan laa koy mayee ngelaw damay jël un linge propre maanaam morceau bu set ma teg ko ci gémmiñ gi damay ubbi gémmiñ gi nag jël sama gémmiñ dëppale koo gémmiñam daal di fatt bakkan bi jël sama ñaari baaraam yi may ko ngelaw daal di dindi sama baaraam tëj gémmiñ gi di ko def ba heure bu ñëwee ah sama victime def na réaction ma xool ba xam ànd na ak sagoom sëñ bi noo tudd ah sama victime wax na ak man kon nooyi gi ñëwaat na ànd na ak sagoom léegi nag dama koy surveiller waaye su fekkonte ne nii sama victime àndul ak sagoom dafa am beneen position buñ koy def dinañ ci ñëwaat ci yeneen vidéo